asalaamaaleykum sama mbokki député yi monsieur le président assemblée nationale maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu monsieur ministre di nuyu ñu ngi àndal di ci ràññee le directeur sénéral Assirut di sant yàlla di gërëm see Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaana mun taxa mu yàgg fi te wér monsieur président assemblée nationale ñi ngi lay jaajëfal 2017 man ak yow ñoo bokkoon toog fii ñu xam si yow dal jubal jub nangoo liggéey kon lépp loo xamante nit wax na ko fii moom la engagé te ñu ngi koy jéggul en tant que représentant de peuple parce que méritu woo yenn kàddu yi man monsieur président assemblée nationale li ma doon sëñ Tuubaa ma ko def waaye yenn kàddu yi dama koy ñaawlu ndax jaxasal ak population bi la sama collègue député bi wàcc fii léegi am na lu mu wax nee na biir sa assemblée nationale vingt milliards la d' accord vingt milliards la mais moom dana si am trois cent cinquante mille en tant que vice président dana si am 200000 francs en tant que admis de logement dana am 1 million 300000 dana am 900000 li nga xamante ne mooy fonctionnement de voiture loolu dana ko am si budget bi pourquoi mun ñu ko wax. kon loolu kenn ku nekk fii may wax a yow danga nga ko jot boo ko jotee loolu ci bis bi lay génn di ñaawlu yenn kàddu yi en tant que républicain en tant que maanaam doomu Sénégal dignement sama ñaari waajur yëpp fii la ñu dëkk Touba lañ dëkk sëñ Touba di sama maam. bu ma dégg yenn kàddu may am gàcce monsieur le président assemblée nationale bu ma déggee yenn kàddu benn député taxaw di wax Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen Sénégal na ngeen boycotté weef bi nga xamante ni ay emploi ñoo fa nekk damay am gàcce te député bi ko fi la nekk kooku honte la pour république xeex politique warul xeex li nga xamante ni tey buñ boycotté weef dañuy manqué emploi ñu dàq ña fa nekkoon loolu tamit maa ngi koy ñaawlu maa ngi ñaawlu yenn kàddu yi nga xamante ni dafay xajjale presse bi ñu jëme ko si Maimouna Ndour Faye ak TFM maa ngi ñaawlu kàddu yooyu benn député moo ko wax il faut que ñu respecter peuple bi mën ngaa wax say wax pour jàppale ku la neex waaye doo wax say wax yoo xam ne da ngay mel ni Maimouna Ndour Faye mi nga xam moo kere 7TV nekk jigéen dërëmu kenn nekku si nga di ko traité wane ni maam dafa far fekk ñëpp la fi nekk maa ngi ñaawlu kàddu yooyu noonu te di ko soldaté ak moom ñun ay député la ñu képp ku def lu yoon ñu wax ko ku def lu yoon ndax ñun sëñ Tuubaa mooy suñu maam faalewuñu kenn ku dul sañ Bàmba monsieur le ministre maa ngi lay ñaax ci li nga xamante ni mooy baykat yi nekk ci côté euh, Kébémer te seen tool yi nga xamante nii dañ leen a jël ba pare joxagul leen dara te mbay mi war a ñëw kon bëgg naa ñu taxaw leen nu mu gën a gaawee pour ñu fay leen li nga xamante a fay ministre maa ngi wax fii en tant que député monsieur le président assemblée nationale li am si dëkk bi yéen ñi autorité war ngeen si jël maanaam responsable parce que lion yi nga xam ne dañoo gagné coupe d'Afrique président de la république honoré leen may leen ay terrain am ñoo ay citoyen ordinaire yoo xam ne sama classe gi ci lu ñu bokk ñu jënd ay terrain benn maire Yewwi Askan Wi ñu dëdd autorisation parce que jotul wàllam loolu dañ ko war a wax te fii boo demee fii nga xam mooy Wakaam maire bi fi nekk nag wut autorisé benn autorisation parce que lii problème bi mooy nee na jotul wàllam ci suuf si kon du autorisé benn man ma jënd sama terrain 60 millions war a tabax lion yi war a tabax loolu tamit war na see jëm ay matuwaay parce que lii nag ngeen di wundi fii loolu war na see bokk république bu amul énergie mooy am bu république amul réew mu jaxaso lay am di ñaawlu taxawaay yi ñu ñu taxaw pour yàq BRT ak TER bi monsieur le ministre bi loolu amee yëkkat naa sama kàddu wax ni tey bi loolu waree am da ngeen waroon jël arme bi ñu dem si BRT ak TER parce que loolu ñun ñoo ko moom ñoo ko leb après Macky Sall ñu la fi nekkal nekkul fi kenn kon jàpp naa il faut que ñu conserver li nga xam ñu ñëpp ñoo ko bokk te bañ a yàq réew mi parce que bu ñu yàqee réew mi bu mu ko jël 2024 wala bu kenn jël 2024 lan la fi fekk lan lay defar kon il faut que ñu sàmm lu ñu doon nit mën ngaa politique nit mën ngaa wax ànduma ak yéen bu ma sañoon ngeen daanu suba waaye du ma yàq du ma yàqulu je vous remercie wa salaamaaleykum wa rahmatullah merci chers collègues la parole est à notre collègue Nderi Ismaïla Diallo le suivant. Merci monsieur le président ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm. di nuyu monsieur le ministre ak ses collaborateurs di nuyu suñu mbokk député yi di wax ne rek monsieur le ministre projet de loi numéro 5 2023 bi portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP et des travaux publics dama jàpp ne ni ñu ko rafetloo woon ca commission ba noonu lañ koy rafetloo ci plénière bi indi nga ko commission député yi jël kàddu yépp rafetlu ko parce que njëriñu askan wi la looloo tax bi ñu koy voté yaakaar naa ne ñu ci bëri mën nañoo seede on l'a voté à l'unanimité donc loolu jàpp naa ne loolu mooy amaat fii ci plénière bi monsieur le ministre damay lay wax rek ne am na yenn kàddu yoo xam ne ku comme ni ko honorable député waxee bi ma wutu fii waxee noonu laa koy wax dañ ciy jégalu mais député mbedd kenn du déglu kàddum nañuy déglu kàddu député du peuple parce que yenn kàddu yi ku ko ñëwee yëkkati fii di ko wax respecté woo Sénégalais yi ngay waxal mais respecté woo assemblée nationale bi nga nekk nii mais nag comme li ma waxoon rek am na doomu aadama yoo xam ne nii fu ñu génnee seen kër seen jikko dina leen topp bu fa ñu nekk su respecté woon nit ñi su waxee nit ñi déglu ko day toog nit ñi wax mu déglu leen mais bi assemblée bi taxawee ba léegi saa bu waxee rek daw na génn parce que li muy wax. xam na ne waxul ko pour njëriñu askan wi mais day wax pour saboter mais nag ñi koy wax ne ñun lépp lu ñuy wax fii dañuy wax parce que sénégalais yi ñoo ñu fal li ñuy wax dafay amal njëriñ sénégalais yi monsieur le ministre may gërëm président Macky Sall ak yow mi nga xam ne nii moom la dénk ministère bi ci la route Mbirkilaan Maabo vraiment ñi ngi la koy fàttaliwaat xam nañ ne yéen ngi ci bu baax ndaxte jamono yi yàggul dara entreprise bi nga xam ne ni tey moo ko war a defar ñëw na ci terrain bi pour def reconnaissance de site loolu vraiment ñu ngi ci gërëm waaye di fàttaliwaat ndaxte nawet baa ngi ñëw ñu gën ci baral liggéey bi di wax ne aussi di gërëm bu baax le prolongement de la route Touba Kaffrine ñu jàllale ko ba Daaru Wanaar mu interconnecté ko ci la route Mabo mu jëm ba Poroxaan loolu vraiment lu am solo la ñu ngi la ciy remercier bu baax waaye di la fàttaliwaat bu baax it axe bu ndaw boo xam ne nii ci plenière yi waxoon naa la ko muy diggante route nationale bi ak xabru Mam Asuwaalo bi nga xam ne nii dañu koy utiliser lu bare bare bare bari te guddul un kilomètre cinq cent rek ñu ngi lay fàttaliwaat loolu di la ko dénk nga jàppalañ ci bu baax a baax waaye di la talalaat loxo la route Touba Mbella Gniby nga xam ne it moom it dañ koy utiliser bu baax a baax di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di wax ne président Macky matière d'infrastructure yaakaar naa ne amul kenn ku mën a diingat kii wax nii léegi buy dem Casamance ci pont bi lay jaar dem euh, dem Casamance pont boobu yaakaar naa ne dund na ay ati at te mosu koo gis mais nag nit soo xamee ne ab dëkk comme ni ko ñëpp waxee amoo fa nijaay ju lay yedd amoo fa maam ju lay yedd lu la neex wax kooku ay waxam kenn du ko déglu waxul lu amal njëriñ Sénégal li ko li taxoon ñu dugal ko ci assemblée nationale bi mu ngi ci bu baax a baax a baax parce que moom dañ ko fiy dugal pour muy wax waxu daanu ci saret bu leen ko yedd looloo ko fi tax nekk loolu lay continuer di def kenn mënu koo tax a bàyyi donc kon kooku ay waxam ñun duñu ko déglu population bi dégluwuñ ko mosu fee ñëw ne ñi ko fal Casamance nañ fi def nangam Casamance nañ leen defal benn route du wax loolu mukk waxu daa ku daanu ci saret lay wax kooku waxam amul njëriñ bu ñu ko kenn déglu kon ñu ngi lay sant monsieur le ministre di la gërëm bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla gën la jàppale wasalaam jërëjëf. merci cher collègue la parole est à notre collègue Ismaïla Diallo Idrissa Baldé